jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu seet si nag kenn koo xamante ne ku yàlla baaxal la mu doon kilifa euh, muy El Hadj Ibrahima ñas tey nag moom lañu ñu seet si ngir li nga xamante ne war nañ ko mën a waxtaanee lu bari bari ak moom surtout ci li nga xamante ne moom la ko yàlla suñu borom baaxee mu koy bokk ak jaamu yàlla yi gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. baada auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irahmani irahim laa hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim amma baxdu nuayikum taxiyatul islaam taxiyatul jamiati al mubaarak afdalu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi lay nuy fay tabaarakallah bëggoon nañoo xam kan mooy El Hadj Ibrahima Niass waaw El Hadj Ibrahima Niass benn ndongo la bu xeebu di ab jaamab yàlla bu xeebu lool waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla si sama xeebu googu ma xeebu ci kanam suñu borom subhaanahu wa yàlla yàlla nii na ma fa màggal ma ndax bokk la na ma ci famille boo xam ne fa lilahi alhamdu sukkur alhamdulilahi rabbil alamin muy famille lew na ñeseen boo xam ne famille maam alhaji abdoulahi ñes maam alhaji abdoulahi ñes radiallahu anhu suñ ko waxee mooy képp koo xam ne yaa sant ñes nekk Kaolack ci Saalum Alaaji Abdoulaye Niass mooy fondateur ci diggante Léona Niassène ak Medina Baye muy cheikh al islam Hadj Ibrahima Baye di sama maam moo Mawlaay cheikhul xalif Hadj Mouhamad Niass radiyallahu anhu di sama di sama maam moo jur sama papa Alhaji baabakar Alhaji baabakar moom di sama jur moo nekkoon ñaareelu xalifa général bu Léona Niassène moo doon mag ci Sidi Lamine Niass bu wal fajiri moo doon mag ci Ahmed xalifa Niass Alhaji Ibrahima daal suñ la doon présenté moom mooy Alhaji Ibrahima moom tabaarakallah. Alhaji duñu la laaj lan moo waral nga dugg ci waaye ñaan gi ci lan ngay ñaan. waa tubaarakallaaw ñaan yàlla euh, lu tax ma nekk ci mooy dama fekk sama maam di ko def moom maam Alaaji Abdoulaye Ñas radiyallaahu anhu maam Alaaji Abdoulaye tafsir na alquran téeméeri yoon ak fukk ak ñeent 114 fois te ba muy tafsir bu mujjëm bu kaamilam bu mujj bi daf ne lépp loo xam ne aayab alquran la bu méngoo garab xam naa loolu lan lay faj gépp garab gu nekk ci kaw suuf xam naa garab googu lan lay faj man naa ko booy ak aayab alquran faj ci xaajooy jaamu yàlla yi ba mu ne ba mu ne des na benn ba mu des benn garab gan garab la mu ne sal guuf mujjanteel ma am sax alhamdulilah rabbil alamin dajalewaat na mbooloo mi ne al sax alhamdulilah yàlla xamal na ma sal guuf li muy faj ndax sal guuf sax fa laa am du secret boobu toog roogaat na ba yegg si ci ñun bokk na ci wàllu ñiy ndox. ñi nga xam ne dañoo nekk ci lii seen liggéey dafa nekk ci ndox ci géej ak yooyu am na secret yoo xam ne soo ko ci defee ala kulli alim ak lu géej ci yëngu-yëngu ak lu mu mën di doon doo des ci géej salguuf moom salguuf moomu euh, ma doon newaat ñaan ci sama wayjur si alxaaji babacar radiallahu anhu alxaaji babacar ku ne xam ne ne law na ñeseen moom lañ daan wax mooy borom jinne yi soo demee ñeseen rek soo ne alxaaji babacar rek ñu ne la mooy borom jinne yi mooy euh, euh, soppeb Cheikh Ahmed Tidiane de radiallahu moo ma jàngal lu bari ci lu may jàngatu ci lu ma def ci ay kayfiyaat ginnaaw bi ma jàngee bitim réew jàng ci réew mi jàng bitim réew ñëw toog ci kanamam toog ci ronam mbeeg mu toog xilaafa général euh, ma tër bu ci ci moom mu xamal ma lu bari ci ay kayfiyaat ci loo xam ne lu mën a xettali jaamu yàlla yi la lépp loo xam ne nag nit da koy soxla ci ñaan yàlla danaa ko def ba mu des luy lor nit lépp loo xam ne day lor nit kenn mënu ma sa ak loo ma jox alal ji lu mu bari bari bari bari kenn mënuma ma koo tax ba def ko lépp loo xam ne nit daf ne ma daf damaa bëgg kii nii mu sànku mu dem wala mu dof wala famille bii nii ñun dañoo bokk kër gi suñu jur génn àdduna ma bëggoon alal ji ma téye ko bu ci kenn tudd yooyu yëpp duma ko def lépp loo xam ne daal su ma ko defee sama boroom topp ma ci duma ko def lépp loo xam ne nag su ma ko defee nit ki gis ci ngër maanaam te yàlla gërëm na loolu alhamdulilahi rabbil alamin dinaa koy def ñaan yàlla nag ci jaar wi ma koy jaar dinaa koy jaar ci ñetti mbir bi si njëkk mooy wàllu kayfiyaat wàllu kayfiyaat suñ ko waxee mooy karnaas yi nga xam ne dama ko donn ci sama wayjur yi ma jëliwaat ko ci ay kilifa yu mag ma am ko nit wax ma soxlaam ubbi sama karnaas dinaay ubbi sama karnaas seet ni ah bii de lii la ci yàlla wax lii lay méngoog soo ko boolantee ak garab gi ak lii nii lañ ko war a jëfandikoo képp ku ko def rek sa aajo boobu dana faju ma jël kay kayfiyaat googu dinaa ko dindi bindal ko sama bopp su ma ko bindee uti garab ak xob wala ren wala yami àndal boolante ko jox ko nit ki wax ko ko nam koy jëfandikoo muy benn bi may jaar beneen bi ci topp mooy ma téewaat sama kurus sama kurus ci saa yu nekk ci waxtu wu nekk waxtu wu sedd di yëpp tëdd muy xaaju guddi ma toog téye sama kurus di jaamu suñu borom subhaanahu wa taala di sàbbal yàlla ci laay azam mooy turu màggam wi di ñaanal yàlla nit ki nga xam ne ay xaajoom dafa ñëw bàyyi ñëpp dénk ma ko di ma ko ñaanloo yàlla ma jaaraat ci bunt boobu di fa jaareewaat ñaanaat yàlla beneen bi si topp mooy ñetteel bi mooy samay kilifa nga xam ne ñooy samay wayjur di samay wasiila danaay yëkkatiwaat alal it yónni joxaat leen ne leen nag diw moo may ñaan loo yàlla su boobaa nag ñoom tamit ñu jàpp ñaan yàlla moo tax léeg-léeg sax nit dina may sant ñaan yàlla ci dara euh, laata ma koy bindal di ko joxal sax moom mu ciy jot rawatina ku nekk bitim réew mu woo ma ne ma sama aajo ba faju na loolu miraaran bari na ñu ma ko defal alhamdulilah ndax ñaan yàlla dafa dëggu ci kurus mu ëpp doole ndax suñ doon wax ñaan yàlla tey euh, mën nañoo wax ne ñetti garaat la lañ koy yéegee kayfiya mooy li ñu ma génnee nii mooy kayfiya maqaamam kayfiya dañ ciy ñaanee yàlla maqaamam wilaaya dañ ciy ñaanee yàlla maqaamam lijaaba dañ ciy ñaanee yàlla bi ci gën a yéeme gën cee garaaw nag mooy maqaamam wilaaya borom wilaaya tey soo ñëwee ne ma Cheikh Ibrahima ma am wilaaya fekk yàlla roof na ma ak wilaaya Cheikh man de dama bëggoon ku ma ñaanal yàlla ci nangam ak nangam ma téye sama kurus ginnaaw bi ma julee suuf farata ba pare def sama dog haddiyal ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni yow yonentu yow yàlla yaa bind yonentu bi yaa ma bind yaa bind diw damaa bigg soxlaam bii yàlla faj ko ci daar daar ci dem def sama dog ci wilaaya googu yàlla mën naa faj soxlaay googu te duma ko jox dara du ma ko defalum dara boobu nag moo gën a am doole ci wàllu ñaan yàlla alhamdulilahi rabbil alamin danaa koy def beneen bi ci topp mooy wàllu lijaaba lijaaba mooy bind lijaaba mooy borom xalimba ñu bari dañ na wax ne Cheikh Ibrahima borom xalimba gi alhamdulilahi rabbil alamin loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñu ne man ku ma bindal rek su ma la ko joxee rek sa aajo faju léeg-léeg sax nit danañ koy ñaan loo yàlla mu ñëw ci man ñëw ne ma damaa bëggoon sama mbind mii ma commencé nga bindal ma ci bisimillahi rahmaani rahim rek ma dem yeggali ji ko pour rek bu barkeel loolu yëpp alhamdulilah rabbil alamin yàlla ma ciy suturaal maa ngi ciy sant yàlla ak sama kurus gi maa ngi ciy sant yàlla daal laa xam ne ci wàllu ñaan yàlla alhamdulilah rabbil alamin ci laa koy jaaree. Euh, cheikh bi euh, dama bëggoon xam diggante faj ak ñaan lan mooy seen différence. waaw faj bokkul ak ñaan yàlla. Hmm. dafa am ñoo xam ne mën nañu ñaan yàlla waaye mënuñu faj. Mm. am ñoo xam ne mën nañu faj waaye mënuñu ñaan yàlla gis nga tey soo demoon hôpital tey docteur yi fa nekk yëpp kenn ku nekk dafa am ci loo màcc. Mm. gis nga ki nga xam ne moom problème am mooy wàllu xet rek la la la la xam soo ko yóbbuloon ay góom ki tànk koo faj. mënu laa faj ma lu man rek mooy fomp rek takkal la ko rek mën na la sax yokkal say jàngoro kook mënu la koo faj ki nga xam ne wàllu biir la man nga dem yóbbul ko bopp mënu ko léegi nag ci wàllu mu looloo tax wàllu ñaan yàlla ci ki nga xam ne day faj ak day ñaan mënuñu bokk euh, dafa am faj yoo xam ne faju rawaan la rawaan moo koy def mooy rab boobu nag moo gën yéeme ndax soo demee kër sëriñ su yu bari ñuy faj kër sëriñ yi nga xam ne dañuy faj saa yoo fa demee nga seetlu da nga fa fekk seen doom joo xam ne nii xel ma dafa neexul wala ñi laago wala ñi melokaan melokaan woo xam ne neexul bëggoo doom ju mel noonu parce que yi ñuy faj ñoo fel dël ci wax ci seen ak njaboot moo tax rab lu yéeme la rab lu yéeme yéeme ci sëriñ bu koy faj la sam pap si alhaaj babacar radiallahu anhu daan na ko wax su ko nit indilaan borom rab moom kurusam rek la daan fajee la daan fajee borom rab léegi soo ko indilee su fajee pare su ma ñëwee na ko waa ah, man daal gis naa sa faj gii nga koy faj gaaw gi mu gaaw mu ne fajarab lu ne mën naa la koo jàngal waaye fajarab duma la ko jàngal léegi ma ne ko lu tax mu ne ma fajarab dafa yéeme rab dafa mën a gudd fan jinne mën na dund ki jun jinne ji nga xam ne ni dafa gàtt fan ñu ne jinne ji de gàtt na fan juróomi téeméeri at la dund te nit su guddee fan ñu ne téeméeri at la dund kii dund téeméeri at ak juróom juróomi téeméeri at bokkuñ léegi man su ma la fajalee yow sa jinne jooj dàq ko mu dem man ma dund téeméeri at dem jinne ji ma dàqoon dem naa moom dana dël ci waat yow su fekkee nga dem man ma dem mu dël ci sama njaboot man ci sama njaboot mu dël si fa fekk leen fa lor leen su fekkee fekkuma ma am njaboot mu seeti samay sët loolu dafa yéeme alhamdulilah rabbil alamin yàlla ak ñu ci suturaal nag ñi ngi koy def waaye faj rab moom wax dëgg yàlla euh, nekk na mag kii boo xam ne tey loolu rek doyoon na émission pour ci ñu waxtaanee ci daal mm. falilahi alhamdu waaye bokkul nag ak ñaan yàlla ñaan yàlla ak faj rab bokkul nit mën nga koo ñaanal ci ay rabam mu dem waaye rab moom dëgg dëgg dëgg dëgg ay secret ko yóbbu ay secret moo koy dàq mais du nekku da ngay taxaw rek bind wala nga dem si bind sa falaxeeg naa si loolu alquran la baax na mën naa faj xaajo yëpp waaye rab dafa am nuñ koy fajee dafa rab man pour nit faj loo ma rab foo mu tuur deret ala kulli alim danañ tuur deret su tuur deret amul rek man du ma du ma ci dugg ma lay njëkk wax rek mooy dañ tuur deret suñ tuuree deret ba pare te man nag bala maa ñaanal nit yàlla wala may def yépp am na bunt bu may jaar mooy xaar man du ma faj nit su ma waxee aajoom soxlaam ba pare su ma ko dégloo dama naan ko nañ def listixaar man nag du ma def seetu pettaaw mënuma ko jéemuma ko ndax pet seetu petaaw dafa xaraam ndax lu xaraam rek duma ko def waaye dinaay def ramlu ramlu mooy suuf teg def ay rëdd danaa koy def danaay def jalmuus mooy ak xaatim goo xam ne da tiimale sa kurus ci ay tur yooyu sikkar mu won la ci li ngay def di waaye bi ma gën a wérlu di ko def nga xam ne ku may fax wax sa moom laay jaar mooy listixaar nga xam ne mooy fanaanu moom la ñuy wax fanaanu su ma ko defee ba pare dinaa la mën a wax ne la ah yow de sa soxla yii lii a koy faj dafa am sarax-sarax si lii ak ko lii ak lii la nii nga koy génnee fii nga koy génnee nii nga koy jox soo paree lii ak lii lii lañ lay bindal soo ko defee rek sa aajo faj fa ci réew mi ñu baree baree bari dañoo feebar dañoo tawat waaye fajkat yi ñoo ëpp sax ñu tawat te it fajkat yi bari na ci ñoo xamante ni euh, ku jëflanteek ñoom ba pare daan ah kii de la ma waxoon gisuma ko wala kii de lekk na suma xaalis wala kii est nekkul daa ñëwoon pour dóor ma dóor na ma am na dara rawatina ñi nga xamante ni ñu ngi bitim réew ñooñu tey lan nga leen wax. tubaarakallaahu ñooñ dañuy siy jooy dañuy wax dañuy wax lu bari. Euh, man alhamdulilah rabbil alamin benn mbindeef mënut mën a wax ne Cheikh Ibrahima Niass ñaan loon naa ko yàlla mu laaj ma fukki dërëm. Mm. du laaj nit benn dërëm. man moomu ma ñaan. yàlla moo ko moom yàlla mooy nangu man ñaan rek laa li may def damay bind jox la tàllal sama loxo ñaan yàlla. mu mm. nangu yàlla ànd ci mu nangu kon li xam ne yàllaa ko moom ma di la ko jaay nan la mën a nekkee. Mm. man nit du ñëw mukk lenn rek laay laajee nit. mooy listixaar te listixaar nit ki li ma ko koy defalee mën naa koo wax ñëpp man 2350 mooy ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk laay defee listixaar ki nekk bitim réew ak ki nekk Sénégal ak ki nekk Maroc ak ki nekk Kaolack ak ki nekk ñëpp a yemle lu ma leen di defalee listixaar léeg-léeg nit ne ma waaw yow listixaar ma nekk bitim réew nga ma koy defalee ay 2350 loolu nan la lan laa la koy envoyé ma ne la man loolu rek laa ci am loolu rek laa ci am te ni ma koy façon bi ma koy defee li may def yi bagage yi may jënd moo tax ma mën a laaj loolu ndax danga faw nga dugg ci néeg boo xam ne nii su ma koy def listixaar su ma koy def bala maa tëdd fu ma koy def ci itam dama koy def ci néeg boo xam ne du am courant duñ ko ñiitee courant ay sondeel ngay jël muy juróom-ñaari sondeel yu bees almet juróom-ñaari almet sondeel bu nekk almetu boppam perkaal bi ngay jënd ci juróom-ñaari mètre ci ngay lal def ci sa ja sa jaade mu loolu fere yooyu laa lay laaj loolu moo tolleeg 2350 suñ paree nag ba ma gis sa soxla ba wax la ne la lii la lii ak koy faj lii ak koy ñaata laa la ma ne la la laaj man duma la wax ne la jox ma dara du ma wax nit mindeef na ko jox ma ñaar dërëm seetal sa soxla bi lu mu la jaral loo ma jox gërëm naa loo ma jox gërëm naa man ku ma kontaan loo ma kontaan man su ma nit joxee loo xam ne kontaan naa rek moom ala kulli alim dana kontaan soxla nag nit dana law léeg-léeg nit dana am soxla tubaarakallaahu euh, fekk am na yéene ju rëy waaye dooleem àggut foofa mu ñëw wax la nga di ko laaj yenn xaalis yi ñàkk nga ko ba pare te soxlaam du faju léegi sax danaa am nit ñoo xam ne danañu toll ci ay Euh, pour ñu joxe sax euh, wàllu euh, xaar bi sax ci 2350 yi da di jafe da ngay dégg ñu toog ñetti fan door di ko lijjanti di la ko yónnee kooku léegi ma ñaanal ko yàlla xaajoom yëpp faju man na takk benn bi say jot mu takk 200000 300000 ñëw taxaw ne maam sëñ bi yow yaa ma ñaanal lool laajoo ma woon dara tey lii dama falilahi alhamdu wa sukkur fi ma nekkoon jógee naa fa alhamdulilahi rabbil alamin lii maa la ko jox ziyaare la ko addi yàlla ko loolu moo ëpp solo fuuf la ma ko doon laaj moo tax man falilaa alhamdu maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu daal tabaarakallah. sëñ bi yéen ñi nga xamante ne da ngeen a féetewoo ci wàllu ñaan yàlla euh, feebar bi nga xamante ne coronavirus bi depuis bi mu fi dugg see ci réew mi ba léegi bientôt léegi ay fan yu néew mu mat at. yoo xamante ni dugg na ci réew mi bi mu duggee lëmbee na àdduna arrêté na activité yu bari gis nga dem nañ ci deuxième vague fi mu toll nii defoon nañ couvre fa delluwaat nañ ci couvre fa amoon nañ ci benn xam-xam. waaw alhamdulilah xam nga euh, corona jaamab yàlla la muy ab feebar boo xam ne jaamab yàlla la man de bokk naa ci ñi nga xam ne gëm naa ne feebar am na ci àdduna bi feebar am na ci réew mi man bokk naa ci ñu ko gëm waaye nag dafa am sama benn xaritu docteur bu ma ci waxtaanal muy docteur bu mag ma ciy waxtaan ak moom mu ne ma Cheikh lenn daal dinaa la ko xamal feebar bi am na ma ne ko waaw ma ne ko mu ne ma waaye nag li nekk ci tubaab yi nekkut ci ñun mm-hmm. ñun ak tubaab yi bokkuñ bind yàlla ñu bind ñun ñëpp comme ni mu bindee xar ak bëy ganaar kenn ku nekk am na loo xamante ni soo ko defee def def ne mu ne ma nit ku ñuul ñun africain ak ay tubaab bokkuñ mu ne ma feebar bi feebar yu bari ñun Afrique suñ actuel suñ suñ dund mooy feebaru wàllaate mu ne ma ñun fekk fi ñëw rek ci àdduna loo fi gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt tànk ci àdduna mu ne ah, mu ne bis dina da dégg ñu ne la feebar nangam da daan wàllaate mu ne ma siburu day wàllaate nas day wàllaate Euh, korobët bëri na feebar yu bari yu ma wax ne ma yooyu day wàllaate mu ne ma te yooyu yëpp di wàllaate su dalee tubaab tubaab day dee. Mm-hmm. te ñun africain dalay dal ngay siburu nit ñëw fekk la fa mu xam ne siburu bii day wàllaate mu ñëw ñëw fekk la fa jël sa bopp bi di la ko bësal ak di la ko téyel te xam na ne lii muy téye day wàlle mm-hmm. te xam na ne siburu day mën naa nit mm-hmm. kon ñun tubaab yi bokkuñ faw ñu xam loolu lenn seet naa def naa ci euh, deuxième vague bi bi mu commencé def naa ci ay tëju def ci ay listixaar xool am na lu ma ci yàlla wax maa ngi jox annonce président de la république monsieur Macky sàll ab soppeem laa duma noonam waaye gis naa ci loo xam ne na moytu moom président de la république bis bu tëjaatee jumaa yi ak jàkka yi nguuram du ko yeggale man Cheikh Ibrahima Niass maa wax loolu du yeggali nguuram moom prés moom président de la république ak lu mun di tëj su tëjaatee jumaa yeeg jàkka yi weeru yàlla weer weer euh, ah, mandaam du ko yeggali du ko matal. xawma nag nan la koy nan la siy jógee nan la koy jógee moom wonuñ ma ko waaye won nañ ma ne ma su tëjaatee jumaa yi loolu du ko du ko du du kam loolu du du lu ma man du lu mën a koy def ndax su ko doon man maa ko mën a def damay def sama bopp président de la république hmm? wala ma def ko sama doom waaye mënuma koo def. te gisuma it ci ay sarax wax dëgg yàlla wanuñ ma ci dara loo xam ne su ko defoon ay sarax man na ko caa génnee moom daal gis naa ne su yoree caabi tëj jumaa yi aaya julli ci biir dëkk Sénégal gii ñi toog weer man daam du ko yeggali ala kulli yàlla ak nu mu ko mun di yegg ak mu mun di nekk nag du ko yeggali loolu moom nañ ñëpp bind te xam ne man maa ko wax. incha allah bi xawli incha allah bi xawli laa waxooti loolu yàllaa ma ko wan te nekkut du def be dama koo def gis ko ma defaat ko gisaat ko defaat ko gisaat ko muy ñett te lislaam nee na ñett mooy mbooloo te ñett yooyu ma matal yépp a ko mat lii moom lu am la président suy tëjaat jumaa yi rek nguuram jeex na su koy tëjaat rek nguuram jeex na loolu moom alhamdulilah lool moom euh, lu am la ci ci feebar bi na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. tabarakallah dina ñëwaat ci wàllu ñaan waaye gis nga fan euh, euh, yi couvre bu leen jaralee guddi gi ñu génn di waaw man de damaa ànd ak xale yi. Mm-hmm. ndax lu tax ma ànd xale yi mooy dañoo nekk ci réew mu pauvre. Mm-hmm. Sénégal bokkul ak France Sénégal bokkul ak Amérique. Mm-hmm. dama am samay xaritu muudu muudu yu bari dañ ne ñoom bi ñu leen tëjee ñi may ñaan loo yàlla bi ñu leen tëjee mu ne dañuy toog seen buntu kër ñi sone jox leen benn enveloppe. ñu ubbi ko muy benn don boo xam ne dañ naan leen dem leen ci nangam ngeen jëli seen dund. lii dugalal nañ leen ko ci seen compte. senegaal mënuñ loolu suñ la joxee ba jox la benn saako ceeb la te ñu ko jot ba duñ saako ceeb lan la mënal boroom kër. léegi nga bëgg a tëj léegi nag ki nga xam ne moom way juram guddi la daan liggéey suñ jullee timis rek mu génn dem liggéeyi këram léegi kooku yor juróom-ñaari doom ca kër ga ak ay soxna nga tëj ko léegi doomam war a liggéey lu ñuy dundee kooku duna génn day jël bakkanam jaay ko ci kaw mbedd mi pour dund googa. ndax day xam ne dee dee rek la gis nga àdduna bii lépp loo fi gis danay jeex daaw ba ren ñi ngi wax feebar bi amut benn bis bu ñu wax ne feebar bi jógee na fi daaw ba daaw ba ren bët set nag ñi ngi yokk wax ay kaa ñi ngi wax ay mortel mais gis nga président li mu def muy ay couvre-feu feebar su fekkoon xanaa kon feebar bi damay wax ne xanaa kon feebar bi dox guddi kay xanaa kon feebaru bandi la luy dox guddi kay xanaa kon bandi rek mooy dox guddi te yow su fekkee ne yow tëj nga ay baar baar yi doon tëj tëj nga ko fowukaay yi doon def yëpp tëj nga ko léegi lan la nit ñi di doxiti ci mbedd mi tëjal li nga xam ne ni guddi gi jot fa la ñuy dem def foofu yi tëjal loolu nga baleen te nit ki nag mu génn ci buntu këram ndax jamono surtout fi mu ko tëjee président su amoon conseil yoo xamante ni xawoon na ñoo am tuuti ci xalaat rek duñ tëj ndax jamonoy sedd lañ toll. Mm-hmm. gis nga jamonoy sedd 9 gi mu wax gi mu wax euh, couvre-feu bi looloo tax nit ñi di ñaawal policiers yeeg a génn mais su fekkoon couvre-feu amut su 9h jotee doo gis kenn ci biti mais nit ñi nit ñi Sénégalais yi ñoo bëgg ñoo bëgg ku leen ñoo ku leen noot lañ bañ léegi nag soo leen dugalee loolu rek dañ naan ñun lu tax nga ñuy noot di ñu tëdd loolu dañuy génn te duñ def dara léegi nag soo leen bàyyi woon ci seen libaat te seddaay bi rek dana leen dugalaat ku ci génn taxaw ne ah waaw sedda bi ak man lii ma fay def sama néeg bee nii na xoolaat bu baax moom mooy président de la république. bu mu déglu ay ñi am na ñoo xamante ni ñoom amuñ responsabilité ci de. ñoom seen responsabilité amuñ ko ci parce que ñoom li ñu am mooy ah président de lii laa xalaat lii ak lii ak wax ko ko def moom mooy dogal lu ñaaw ci réew mi moom la lu baax ci réew mi moom la lu naqari ci réew mi moom la lu neex ci réew mi moom kon suñ ko waxatee na ci xool dëgg dëgg dëgg lan moo ci njariñu askan wi li ci njariñu askan wi mu jël ko def ko li nga xam ne du njariñu askan wi mu jël ko bàyyi ko loolu daal su ko defee te moom ab jullit la te jullit day am yërmande jullit day yërëm nit jullit day bëgg lu baax jullit day dimbalante te su fekkee ne moom ab jullit la woote ne ne ab jullit la ba pare aw askan téye saw askan di leen noot di leen def yi falilaa alhamdu wax dëgg yàlla loolu ñaanuñ ko yàlla su këppoon ci kaw musiba am su këppoon ci kaw wala mu këpp su njabootam musiba am te Sénégal kat bari na ay nitu yàlla de bari nay ay nitu yàlla de bari na ñoo xamante ni ñi ngi toog ngi leen di romb ci mbedd mi ñi sol ay sagar di dof doflu yor di yalwaan billaahi nitu yàlla lañ billaahi ca xay bu la ñuy naanee billaahi ca xay bu la ñuy naanee te ñooñu bis boo leen sonalee nga wax leen ñoom suñu waxee rek kun la balu kun la kun nag moo mën kënu boroom kun du xeex ak borom kënu te boroom kun yi ñu ngi ci réew mi na sóoraale loolu bu baax te moom yorut kun kënu la yor loolu moom na ci na ci bàyyi xel bu baax a baax a a baax tabaarakallah am bi ñu ñëwaat ci ñenn ñi nga xamante ni tey ay ndaw lañ nekk fii ci réew mi a tukki euh, tukki bi tëkk tëcc ne du du taxaw duñ mën a dem kooku am nga ci pexe. waaw tukki euh, gis nga gerte. gerte gi ñi ñi ñi ñiy defee xolli di ko yëy biñ am bi am ñetti doom yi ñetti doom soo ci amee ñetti gerte am na aaya alxuraan loo ko benn aaya alxuraan loo koy boole laxas ko ci kayit bind ko jox ko nit ki suy génn këram di uti visa suy génn rek. mu dindi benn bi rek yéey su demee ba nga xam ne xaajal na yoon wi mu dindiwaat benn bi yéey su demee ba yegg ci fi muy duggee mu dindi benn bi yéey këyit gu mu dugal ñi may ko waxuma visa sax waaye leneen loo def rek loo dugal rek ñi may la alxuraan indi na lépp gis nga secret soriwut am na ku ma ko wax fii am na ku ma ko fi doon ñaan loo yàlla xam naa ne su ko seetaanee du ñàkk dana ko wax bi ma ko waxee dama def na ma sëñ bi loolu yomb na jóg dem ci marché bi uti ko indi ma ñëw defalal ko dama defal mu génne ay këyitam wan ma ma jël këyit yi am lu ma ci bind jël passeport bi am lu ma ci bind na ko mu ne ma lundi laa am rendez-vous lundi dem mu dem bi mu demee yàggut mu woo ma téléphone ne ma accordel ma sama visa bi dem na ma nga France fi ñu ne nii tey jii tabaarakallahu loolu alhamdulilah moom ak nit ñi nga xam ne ñoo soxla it euh, jigéen ñi soxla jëkkër loolu it alhamdulilah rabbil alamin ay secret yoo xamante ni yu gàtt la yu ndaw loo xam ne danga koy def rek léegi rek borom xaajoom faju gis nga secret lu luy faj luy faj xaajo bëriwut jërut fuba ba ngoon waaw tubaarakallaahu man nag ñaankatu yi damay ñaan yàlla di sonn ci nit ñi ndax damay nekk kawlak laa dëkk damay ñëw ndakaaru lu bari li may indi ndakaaru mooy li may man su may ñaan suma nit ñi dajalee si woo ma ci ñaan yàlla pare yóbbul ko nga dem yóbbul ko ci CPM bi moom mu dem jot ci loolu yooyu yëpp dimbalal nit ki la ndax nit ki soo ko yéenee ñaanal da ngay ubbi sa xol laa biiral ko ko pour lim ah, lim lim lim bëgg man ko am loolu daal alhamdulilah maa ngi ciy sant yàlla bu baax waaw këyit mën naa am. gis nga nit lu tax li am taxaw nit yu bari di dem bitim réew di am jafe-jafe mooy bitim réew dafa taxaw rek seetluwuñ ko. demuñ ci ay ñaan rek ñi dem. biñ demee xooluñ dara lu dul nañ dem rek ak xaalis ba. biñ demee ba yegg ay jafe-jafe ñëwal te nit ku nekk am na rawaan boo àndal. am na nit ñoo xam ne nit nit ñëpp ñett lañ dafa am ñoo xam ne seen rawaan safara la. am ñoo xam ne seen rawaan ndox la am ñoo xam ne seen rawaan ngelaw la nitu ndox soo ko booleek safara day fay safara sa da koy fay. moo tax léeg-léeg sax nit ñëw ne ma man damaa bëgg nga ñaanal ma yàlla ma takk diw ma seet ko ne la yéen ñaar seen diggante bi sëy yu bëri ñu ngi tas ci réew mi jamono ji looloo koy def ndox ak safara ndax danañ ànd léegi nag nga jël yow ngóor gi ngay ndox jigéen gi di safara wala jigéen gi di ndox yow ngay safara ngeen dem ànd saa yu ngeen àndee du yàgg nga fay ko kenn fay ci moromam léegi nag nga commencé wax waaw ba ma la takkee ba léegi dama doon liggéey liggéeyatuma amatuma dara maa ngi nii sama yii yàqu na sama nangam yàqu na sama nangam yàqu na loolu yàlla moo ko fi def nit balaa dugg ci soxna wala muy dugg ci dara da ciy seetlu dem ci kilifa gim yaakaar ci wàllu ñaan yàlla mu defal ko ay fanaanu listixaar su paree lam ca gis ci ay sarax mu def ko lañ ko wax ci sarax yi mu def ko ba pare ñaan yàlla heure bu nekk su ko defee rek këyit da koy yomb waaye xas ba dem nag ba loolu yëpp romb na ko nag mu tax da dem de kii léegi nag loolu am nañ ci ay pexe danañ am fu ñuy jaar foo xamante ni fa lillahi alhamdu dana am loo xam ne suñ la suñ la ko yónnee soo ko defee ñi jël loo xamante ni ci jën lañ koy def jën boo xam ne ni maanaam dañ koo napp bees muy patti patti noonu euh, kii agut ñu fexe foofu jàpp ko am téere boo xamante ni dinañ ko ko ubalal ci biir gémmiñ gi sànniwaat ko ci biir géej gi ala kulli alam incha allah bi hawlillahi wa quwwatihi Euh, du yàgg dara nga woote ne sama kayit génn na xam ndax danga nga doo ñëw koy waaye sa kayit moom ya nga amoon dana ñëw incha allah bi xawlillah wa xuwati sant ñi bëggoon am numéro Cheikh Ibrahima Niass bëggoon koo gis euh, boo ñëwee Dakar nan la ñuy def ba gisanteeg yow ak boo nekkee Kaolack fan nga nekk nan la ñu mën a def ba gisanteeg yow. waaw tubaarakalaa comme ni koy nit ñëpp di ma gisee xam naa du ñàkk ngeen dawal ko ci seen banc euh, seen écran bi mooy numéro bi waaye su ma doon wax numéro bi mooy WhatsApp la. Euh, ci la may bitim réew di jotee ci la may waa réew mi yëpp di jotee euh, muy euh, cent 77 408 57 68 loolu mooy sama numéro man nag awma secrétaire di ñi ñi nga xam da nga leen di woo doo leen jot ñu naan man soo ma woowee soo ma jotul rek xamal ne damaa jàpp soo ma bàyyilee message vocal ci whatsapp su ma ko liiree su ma la tontuwul rek xamal ne damaa jàpp ak ko man di doon soo ma woowee su jàpp rek dinaa la wuyu soxla boo mën di am it su ma ko manee dinaa la ci wax su ma ko mënu di dinaa la wax ne mënu ma ko waaye nag sama téléphone sama sama téléphone maa ko yoreel sama bopp kenn du jot man rek ngay jot ala kulli alim incha allah ni mu loolu mooy numéro xam na du ñàkk ngeen dawal ko ci seen ban kii yu écran bi incha allah rabbi hawla wa quwwata ku mel ni sama waa ji caméraman bi nga xamante ni jéem naa def nu ne pour am soxna mënul am soxna am na ci soxna yoo xamante ni ñoom it jéem nañoo def nu ne mais amuñu mënuñoo am boroom kër moom moom saa yi ma waxee mu ne ma dama am rab bu may teree am soxna ak yu mel noonu loolu loo ci nit day am rawaan nit du am rab rab moom nit du ko am da koy topp nit nag man rab mën na koo topp rab mooy saytaane mooy jinne waaye rawaan kenn ku nekk am nga ko ni malaaka yi di ñaari malaaka di nekkee ak yow yàlla booleel ak ñoom ñiy bind say jëf say tiyaaboog say bàkkaar noonu la nit ku nekk amee rawaan rawaan bu nekk nag ci nit am na laaj ay sarax yu muy laaj ci yow soo ko xamee moo tax nit di def lu ñaan yàlla di def lu listixaar baax na pour mu wax la say sarax ngay mën di jëfandikoo say sarax tey moom mu soxla mu bëgg soxna fu mu dem rek jigéen gu mu dem rek waxtaan ak moom ba pare léegi-léegi nga dégg ñu ne la moom su waxtaaneek ak yàggul rek ñu takk kooku wala moom moom mooy dem ba ci kanam moom mu bàyyi du xam lan moo ko ko bàyyiloo dafa am rawaanam moom ci moom rawaanam woo xam ne rawaanam bi jigéen la bëgg nekk ak moom bëgganteek moom ba pare te te du ko bàyyi te da koy fiire ci moom looloo walal góor gi léegi-léegi muy tëdd lu bari di gént di nekk ak jigéen léegi-léegi mu tëdd jigéen koo xam ne xam na ko léeg-léeg sax nga ko gis koo xam ne danaan la man daanaka sama sama rakk ji laay gént di tëddal loolu rawaat moo koy def wala mu ne la ki may tëddal du ma xam kan la léegi nag loolu am na ay ñaan yàlla yoo xam ne di soo ko ci defee ak ay kayfiyaat da nga koo war a def nit ki suuloo ko teg ànd nii jël xal juróom-ñaari xal yu xonq coy mu jënd xaatim googu ñu xisaab turam xadat tur bi lim am ak aaya bi lim am ñu def ko xaatim boole koog moom mu jël ko suuloo ko ñu jox ko saafara mu sangoo ko loolu dañ ci moom. loolu moom ala kulli alim dem góor nga wala jigéen nga loolu moom ala kulli alim day am bokkut nag loolu nag bokkut ak ki nga xamee maanaam nit ki dafa gis nit ne maa man de Ibrahima Thiam mii de dafa bëgg uh, Kumba Diop mii daf koo bëgg ah loolu nag moom bokkut ak loolu da ngay am loolu li ñuy wax noob loolu moom mooy uh, géej gi am na ndox loolu yomb na lool fa lilaay alhamdu wa sukuru alhamdulilah daal loolu moom sant nañ ci yàlla noob moom am na secret yoo xamante ni su dee ci wàllu jigéen euh, gis nga béjjënu bay su dee jigéen ay nopp lu góor béjjënu béy bi na nekk béjjënu bay bu góor mu indi ma ko dinaa ko jox benn téere boo xamante ni euh, mu jël ko samp ko ci euh, tefes géej daaj ko woo ko mu dem balaa jant bee sox su ba su fekkee borom borom waajooj na borom rawaan bu mag la dana àgg ba juróom-ñaari fan dana ko dégg téléphone wala mu ñëwal ko ci kër ga. su ñëwee it na ko ubbil kanamam dina ko wax waxu takk incha allah bi xawlillahi wa quwwati ndax su dee góor nga wala jigéen nga su dee jigéen nga moo ko moo bëgg góor gii bëjjënu bay bu góor lay ut su dee góor moo bëgg jigéen gi bëjjënu bay bu góor su dee góor la daal bay bu góor bëjjënu bu góor su dee jigéen bëjjën bu jigéen ñi def ko loolu ñi koy def ak secret yi ñu koy booleel càmmooy lañ koy liggéeyee ci kàttan duñ ko liggéeyee ndeyjoor lépp luñ ciy def càmmooy lañ koy def càmmooy lañ koy bindee càmmooy la ñuy gas càmmooy la ñuy suulee càmmooy lañ koy sottee lépp càmmooy lañ koy def incha allah bi xawlillahi wa quwwati du yàgg rek loolu am incha allah bi xawlillahi wa quwwati ci wàllu làmb ñaari mbër yuy jëflante war a bëree ci faral di waaw danaa ci ñaan am naa ci ay xarit sax. ci làmb ji fii. ñoo xam ne alhamdulilah rabbil alamin euh, laata ñu ciy dugg lañ daan ñëw ci man di ma ñaanloo yàlla ba dugg ci. Mm-hmm. ñu ciy dugg sax am na ñoo xam ne yëkkati nañ seen téléphone ak seen wayjur woo ma ne ko ah kii de dama dugg naa bokk bokk na ci seen wayjur bañ ñi wax ma ne ma dimbale ma ci samay wayjur ma ne leen lu wayjur bañ. bu ci ànd mm-hmm. waaye ñi naxante ba loola am xalilahi alhamdu am naa si ñoo xamante ni tubaarakallahu ñoom xam nañ seen bopp alhamdulilahi rabbil alamin Euh, yàllaa ak ma booleek ñoom ci làmb lanaa leen def daal lenn daal dinaa koy léegi léegi ñu ñëw euh, am ay jafe-jafe ci yu ñu leen jàpp wala nangam su dee wàllu euh, saytaane la lu ñu leen booleel li ma ci mën a bind ci alxuraan dinaa ko def waaye duma defal ñaanu làmb mukk ci sacrifice loo xam ne lu xaraam la mukk kenn mënumaa fexe ba def loo ma lu xaraam. waaw loolu xaraamut loolu mën naa nekk. làpp am na loo xamante kay. Eh, xam nga léegi léeg am na ñoo xamante ni làpp taake bi dañ koy eh, kii déedéet am na loo xam ne dañ la koy bindal ci sa ci sa loxo rek nga dem même su fekkee ne tooyal nga ko ba raxasu mi ngi sa mi ngi sa loxo bi dafa am benn sëriñ boo xam ne sama sama papa moo ko daan nettali eh, benn mbër mu ñëwoon ci sëriñ bi ñëw na ko damay bëree ñaanal ma yàlla pour may daan mu jox ko baatu da bindal ko ci kii na ko jëlal dagg yi ngay dem koo taseeg rek su ngeen rek na ko da soo koy dóor mu daan mbër bu mu taseeg rek na ko da dóor mu daanu mbër mu taseeg ni ko da mu dóor mu da ba ub làmb ji jot roi des arènes benn bis jot saytaane jaay ko ne ko sëñ bee ci des demal baak sëñ demal dëkk sëñ bi mu ñëw ci sëñ bi ne ko sëñ bi nag yow rek yaa ci des ci dëkk bi yow nag laa bëgg a bëreel sëñ bi ne ko ah mu ne ko waaw yow rek a ci des yow rek sëñ bi ne ko dañ tëgg làmb ji ñu tëgg làmb ji stade jot nit ñi toog mbër mi commencé liwaatoo wax sëñ bi ne ko da sëñ bi ne ko di dóor mu sëñ bi dóor mu daanu mu ne ko boobu de jàngaloo ma ko woon mu ne ko da pour yéen la waaye di pour man la loolu nag ni mu amee sëriñ bu nekk war ngaa am da soo joxee da war ngaa am di war ngaa téye sa di looloo tax mbër yu bëri am nañ ci ñoo xamante ni danañ daan jaarak ñoom fenn ñu dimbali ñu ba ñoom seen tur yi commencé di yëkkati ñu commencé jël dagooga dem di ko foog ne feneen la ñun ñu téewaat suñ di danañ mujj ñëwaat ci ñun. Hmm. waaye nag man moom benn ciment laa benn yoon laay tooy loolu moom ñëpp xam nañ ko fa tillaahi alhamdulilah sukkur maa sant yàlla bu baax alhamdulilah. mbër yi euh, d'habitude dañuy bëgg di dem ay bitim réew ñuy mbër yi dañuy bëgg di dem bitim réew ñuy bëgg dem États-Unis ñuy bëgg a dem France des fois combat sax bi nga xamante ni ci li ñuy liggéey ci làmb da leen ticc pour ñu am combat day doon problème ci ñoom ba di tukki bi day doon problème ci ñoom ñooñu am nga ci pexe. xam nga nit doom aadama su fekkee sa yaram dafa tilim ci cat tilim ci ay saytaane tilim ci ay liggéey tilim ci ay wax loo yóotu doo ci jot. loo yuutu doo ci jot alaa kulli alim dañ naan lii diwa ko moom sax waaye soo demee doo ci jot. sa yaram a tilim man ku may man di ñaanal yàlla bala ma laa defal dara dinaa la defal cangatu dindi liy cat ci yow ak làmmiñ ak wax ak saytaane pare doo di indil ci yow wërsëg waaye soo bëggee jël wërsëg rek indi léegi nag mbër moomu bala moo ñëw su fekkee ne moom dafa war a dem uti visa pour tukki pour combat am euh, pour dem uti ay entraînement am kayit yi muy dugal fexe kayit yooyu mu war a dugali su lijjante ay kayit ba pare na ma indil kayit yi rek kayit yi ak passeport bi na ma ko indil rek ak euh, ñetti doomu gerte yu ma ko wax noonu incha allah bi hawlillahi xaw ma dana su demee ndax dana ñëwaat bëri ci combat bi didd waaye dana dem dem moom ala kulli alim dana ko def incha allah bi hawlillahi wa quwwati loolu moom alhamdulilah ak fu mu mën di taamu fépp foo xam ne nit a nga fay dem rek dana fa dem su dee la am na fu mu koy dugal foo xam ne fa lañ koy maye waaye nag am dëkk yoo xam ne nii amuñ amuñ ambassadeur fii nga bëgg ñëw ne ma foofu laa bëgg dem kayit yaa ngi nii lijjati naa ko foo koy dugal kooku su ma la ko joxee it pertement la waaye su fekkee ne Amérique la France la Italie la Espagne la am nañ fay ambassadeur soo ma joxee kayit yi su ma ci defee la ma ciy def ba pare bind ca la ma ciy bind du ciy bind du daa du xalimba sama loxo bii laay jël comme nii teg ni nii bind nii dara du marqué su ma la ko joxee tëj ko ne la bul ko tijji féeg ka ka nga koy jox rek moo koy tijji ci ambassade bi suñ ko tijjee duñ xool dara suñ su ko defee xasee ba def nii nii du xool dara kii du duudu jóob la tamponné rek amatul leneen incha allah bi hawlillahi wa quwwatihi waaw loolu secret la moom parce que lëndëmal nañ bëtam moom gisul lu dul xel mi nekkatu fa tamponné rek dem loolu rek nekkatu fa di fi vérifier ni ak li ak lii yëpp am na ñoo xam ne sax seet këyit day day day dañ naan manqué na benn wala baaxul lii waaye suñ suñ ko ñëwee dañuy dañuy dañuy dem incha allah bi hawlillahi wa quwwatihi. jaajëfal bu baax nangu gi ñu nangu mais nan nga gisee sit internet bi nga nekk ndax xam naa ni bëgg nañoo yokk te mënuñoo yokk te sit bi yokkut ndax ku nekk ci li nga nekk rek bu yokkee nga yokk euh, ñu bëggoon nga ñaanal lañu ñu ngi rafetlu seen liggéey. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa ne euh, man kilifa laa. Mm-hmm. ndax ci famille kilifa gu mag laa bokk. Mm-hmm. bari na ñoo xamante ni tey jii su fekkoon ne bëggoon naa waxtaan ak ñoom rek. ñu bari songo nañ ma pour waxtaan ak man. waaye seen liggéey laa rafetlu. waaye yéen bi ma leen seetaanee xool xam naa leen seen liggéey rafet na ba ñeme naa cee dugg ndax kilifa la am na foo xam ne su ma fa naree waxtaan rek wax fa rek damay xam ne fii war naa faa wax kon yéen seen seen lii sit la boo xamante ni mën naa wax ne situ télévision la ndax liggéey bi ngeen ciy liggéey liggéey bu am solo ak programme yi ni ngeen koy tegee muy programme yu riche seetu leen ci maanaam yéen li ngeen ci njëkk a jiital mooy intérêt Sénégal bala ngeen cee seet seen intérêt bopp te loolu moo ëpp solo waaye ki nga xam ne moom day seet lu neex àdduna bi rek moom su dee nit ñi dañuy def taatu neen su ko su ko tegee sax nit ñi seetaan ko rek mu teg ko man du ma du duma duma ci du ma duma du ma dugg ci ñooñu waaye yéen nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla def seen yëf yi nekk télé képp koo xam ne yaa ngi ciy yëngatu daal yàlla yàlla def sa càkkutéef nga am la nga bëgg balaa dewin ci heure bi daal incha allah ci kattanu yàlla bi xawlillaahi wa quwwatihi yàlla na yàlla dogal ñuy def émission boo xam ne ci télévision ngeen koy ngeen a koy moom koy toog fii di ko fa def ci kàttanu yàlla bi xawlillaahi wa quwwatihi yàlla na ko yàlla def ci barke monsieur yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu